ربتي فوق ما هو di wax rek ne tey dañoo am mbégte li tax ñu am mbégte mooy Ndour dafa nekk dafa am une particularité on a la malchance d'avoir quatre candidats quatre candidats Yewwi Askan Wi de Cheikh Bitèye waa nag bi ñu fi di Modou Camara am na yeneen deux candidats yu jóge suñuy flanc nekk fi muy quatre candidats donc loolu moo tax monsieur ministre bi ñu sentiree candidats yu bëri yooyu noonu on a un mois de pré un mois am plan d'action man particulièrement je venais que les week mais du lundi au vendredi la comité. En son temps, il n'y pas de comité. Mais ils s'organisaient les lundis chez Thior, envahir les maisons de loup. loolu ça nous a beaucoup ñu leen di rafetlu bu baax parce que nag ñoom ñoo ko def ñu ngi nii toog donc loolu lu ñu war fësal la leneen li mooy li ñu war a leeral à l'endroit de la presse lu il faut ñu leeral parce que ñun ñu nekk ay ndaw président Macky damay am la habitude di wax naan ñun certes nous sommes des jeunes waaye langue politique Fatick su Macky Sall daanaka ay vétéran lañu lépp pratiquement fekkee nañu en cas bi président Macky Sall décidé am un engagement politique local muy 2002 ba tey macha allah on est là. kontaan nañ ci jigéen ñi kontaan ci jeunesse Ndoup kontaan ci responsable Ndoup kontaan ci sage Ndoup yi wane ngeen ne Ndoup quartier jom la wane ngeen ne Ndoup quartier gore la wane ngeen ne da am jom am fulla am fayda nangu leen ku leen faja mer te du ngeen trahir ñii fi nag yëpp ay góor lañ kenn du ci trahir waaye nag ku trahir ren ba déwén gisoo ko dañ la ko ji xam nga nag des fois damay bëgg a soppeeku waaye bu ma soppeekoo bu ma waxee ab sadia bu ñibbee dina nekki doon wax du matar ba moo tax may rafetal wax ni waaye ñii nekk suñ kanam dëgg-dëgg bu jaruloon jarul rafetal wax parce que ñoom defe nañ ne yàq der mooy tax ñu am dara yow président Macky Sall nommé la boo ñëwee Fatick rek daa am dëj bu rëy duñ la gis tabaski soo ñëwee Fatick ay jàng am soo paree dem sa yoon waa Fatick di jóg di daanu su dëj amee ñu gis Biram Fay su liggéey amee ñu gis may samay xool su jafe-jafe amee ñu gis El Hadj su amee ku dem hôpital ñu gis Amikoto Ndiaye su amee lu ñu war a wax ci dëkk bi ñu gis Fatick moo ñu ñor Modou Sy suñu waree dem assemblée nationale Binta Seck taxaw su ma xeex jot ee eh, jaajëfatoo taxaw Ngoone Fall taxaw Papa Sarr taxaw Lamine Sarr taxaw May Safaan taxaw Njaw Seen taxaw waaw ñooñu ak bi taxaw waaw waaw ñooñu di ngeen leen jënde ñoo xamante ne dañuy dox di tappal loolu mënu kon li ngeen def mooy fula te président Macky Sall bi jiite coalition Benno Bokk Yaakaar mu ngi ñuy suivre kontaan na ci yéen kon lii yëpp bu amee li ko waral mooy da ngeen nekk benn nangu may samay koor jiitu Grand Thior nekk suñu mag uuf leen ngeen dox dox bi def lu mel li ngeen def moo tax ma ne li ngeen def nag moom bu kenn mer kenn defagul xanaa xanaa xanaa ñoom jaay ko ñoom ay ndey amile yi comme suba la war na ñoo mën a gis musóor yi bañ a def nii waaye ñu def neneen li ngeen def dafa am solo parce que nag kasu may ngeen ma jële ci suba andi ma ba fii ma recevoir mag yi recevoir jeunes yi recevoir jigéen ñi ba tey mobilisation bi mu ngi fii kenn demul moo tax ma leen di ñaan ngeen déglu parce que Birame Wadane Faye sama rakk may sama koor sama El Hadj Souleymane coordonnateur comité électoral ñoom ñëpp dinañu wax wax ak yéen dama teel a wax parce que lu muy gën di guddi baat bi day bañ parce que toog naa ay fan yoo xamante ne benn waxtu sax doo nelaw waaye jar na ko Fatick moom yéen leader yi lay wax lu ngeen defal nit ñi jar nañu ko. Ndiob nag Ndiob nag li ma bëgg ngeen def. mooy président bu woote see war naa xam ne fii xeex amu loolu li koy tax mu am mooy jeunes yi bu ngeen xëyee balaa 9h dina yegg si waxuma ngeen di buuxante da di nekk benn mobiliser ci yar xejal ko gunge ko ko mu dem voté bu génnee ñibbisi bu ñibbee jaar nii dem Dakar dana xam ne Fatick quatre pour cent quatre pour cent moo fi yam